ne ñu weesu assemblée nationale bi nga xamante ni yaa ngi koy fàttali léegi ci sa biir wax nekk nga ñetti at euh, par ñetti yoon parlementaire maîtriser nga bu baax a baax li nga xamante ni moo di fonctionnement wu assemblée nationale. boobu la assemblée nationale nag l' actuel premier ministre Ousmane Sonko dafa xamle woon ni euh, ba ñu def li nga xamante ni moo di déclaration de politique générale waaye laataa mu koy def dafa tegoon ay conditions ni daal bokk na ci ni nañu defaraat li nga xamante ni moom moo di règlement intérieur assemblée bu yees bi lu ni mel nag député yi euh, fekk si nañ ko ndax keroog jot nañu li adopté li nga xamante ni moom moo di boobule Euh, loi de modification maintenant nag fi ak ay euh, weer ci kanam euh, wala bokk fii ak ay fan ci kanam procédure bi certainement danañ ko accélérer yóbbu ko conseil constitutionnel su ko defee président après plus tard mën a promulguer li nga xamante ni moom moo di boobulee règlement mais lu ni mel ak lu ci munte am ndax jàpp nga ni déjà buñ taxawee ci ci forme bi ndax jàpp nga ne yëf yi waroon a yegg si fii ba ñuy indiwaat li nga xamante ni moo di règlement bu bu bu woon wala boog bu méngoo ak bi nga xamante ni moom lañ jàpp ni moo baax. bon xam nga <laughs> président man xaw ma sax président laa koy woowee xaw ma premier ministre ndaxte ñaare ñu ci bëri dañuy wax ni président Ousmane Sonko alors que tey li ñu may laaj euh, du président Ousmane Sonko mais premier ministre Ousmane Sonko la war a doon xanaa euh, des fois ñaar yi day jaxasoo ci sama bopp. ndax wax dëgg yàlla sénégalais yi bu ñu xëyee di wote ji ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ñu def président de la république il faut ñu arrêter euh, yenn yooyu baaxul c'est pas bien beneen bi mooy euh, premier ministre Ousmane Sonko dafa war a xam ni mooy premier ministre nekkatul opposant réew mi jox nañu ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu def ko première ministre walbatiku yéene ko siège bi mu toog di def lépp pour moom mu toog fi loolu nag cër la boo xamante ni il faut nga xam ko. am na sax ñu ne Sonko day toog après jox euh, Diomaye day toog après jox Sonko Sonko toog def delluwaat delluwaat ko Diomaye. waa Diomaye moom nee du ci tontu. Euh, tontu bu xaw a nébuleuse la boo xamante ni comme nee na du tontu ci mandat te waxoon ni man benn màndaa laay def jox Ousmane Sonko mu ñëw ah, yomboon na di moo gën a yomb wiir wiiri bi loolu amul solo li am solo tey mooy dama defe nii euh, le premier ministre Ousmane Sonko amul woon moom pour waxe noona parce que xam nga waxin dafa am solo te dafay am cër yoo xam ne bu la ko yàlla joxee moo tax ñu di la boole ak ay conseillers yu bëri pour kay ngay concerté wu ak sa entourage di door a génn euh, premier ministre bi nga xamante ni <laughs> Guy Marius Sagna avant Guy sax dafe moo jëkk a génn mooy def naa mooy seen mooy seen euh, président groupe bi di défendre ñëw Ousmane Sonko ci assemblée national ma defe nii waroon nañu ni xoolaat démb parce que ñoom règlement intérieur boobu ñu ni baaxul mais ci lañ leen euh, installé assemblée man nañ ni bañ ñu installé xamuñu woon ni baaxul parce que boo duggee ci saal bi lañ la koy jox waaye bañ leen installé ba jox leen ko ba pare cër yi nga xam ne dafa nekk ci biir assemblée te ñu koy séddoo muy les autres parlementaires yi nga xamante ni dañuy dem au niveau international mais ci lañ leen élire. kon lu tax ñu nangu ko. muy foofu da nga est-ce que foofu kon da ngay ànd ak ku mel ne honorable député Guy Marius Sagna ak ku mel ni euh, Abdou Bara Dolly bi bi lankoon voté li nga xamante ni moom moo di modification parce que jàpp nañu ni waruñu régler injustice di fa teg beneen injustice. Euh, boo ma relancer ci noonu da damay damay perdre sama fil xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga man du ma personnaliser débat wu parlementaire ci ay kii damay damay wax ni am na CEDEAO am na panafricain am na am na beneen bi. Euh, euh, OCI. ok l'OCI. am plusieurs parlements ñoo am ci réew mi alors que bu ci nekk ñoom am na ku leen fa représenté et pourtant ci règlement intérieur bii ñu ni baaxul ci lañ leen fa yóbboo mais lu tax ñu bañ loola beneen bi mooy bi bi nga xamante ni premier ministre Amadou Ba ñëw na mais ñoom seen motion de censure bi ci lan lan tënku woon pour def ko wala dañ doon dañ doon dañ rek def le show devant les caméras sonal askan wi te ay pourtant kon xamoon nañ ni réglement intérieur non réglement intérieur bi bonul parce que bu ñu dee delloo si benn dispositif la ñuy delloo si te la ko dindi woon xam nañ ni mille dix 2019 dañoo génne woon dañoo supprimer woon le poste premier ministre bi ñu ko indee dañoo war a réintégrer article yi nga xamante ni moo concerné loolu mais débat wu assemblée nationale ak disposition yi nga xam ne noonu la régle na assemblée nationale di doxe lépp mi ngi ci règlement intérieur bi kon euh, defe naa ni li am solo tey. no man lu ma xam ni moom laa laa wax dama ni li am solo mooy ñoom malgré ñoo fa majoritaire mais fexe nañu ba réew mi am dal. ba ñu delloo si li manqué woon ci réglement intérieur bi pour permettre ki nga xam ne danoon day génn ci mbedd mi defee fa déclaration politique générale am jury populaire mu permettre ko li ko constitution bi may digal li ko constitution bi digal mu ñëw def ko parce que règlement intérieur bu ñu fàttee ni mu nekk euh, disposition yooyu nekk ci ak mu bañ cee nekk du tee Ousmane Sonko dafa war a dem assemblée. parce que constitution bi moo ko ni da nga war a dem assemblée. am na ñu jàpp ne nag du dem dafa nar a xaar li nga xamante ni moo di quinzième législature bi. xam nga bu ñu jàppee ni quinzième législature dañu am cent pour cent des députés kooku nag seen bopp la. allo ah, mënu nekk. loolu ñoom ñoo ko war a bañ xam nga lu tax ñu war ko bañ. Hmm. parce que deux mille vingt deux ñoom ñoo campagne ni assemblée national dañ ko war a jox opposition bi pour mu nekk contre mais waruñu jox le président de la république majorité alors que muy buur di bummi ñoom bu ñu bañee loolu dañuy waroo ak li nga xam ne moom lañ doon xeex deux mille vingt deux te deux mille vingt deux penda soriwul ah. mais ñoom bu ñu amul bërki démb la mais ñoom bu ñu amul majorité euh, ndax dinañu mën a gouverner comme ni dinañu gouverner à cent pour cent parce que euh, sénégalais yi ñun du ay baadoo la gis nga ñoom pour ñu xamoon ndax danañu gouverner. wala du ñu gouverner dañu waroon a dugal ay projet de loi xool est-ce que député yi dinañ ko voté wala duñ ko voté ñoom dañu waxoon ni dinañu criminaliser affaire wu góor jigéen nañ dugal loi bi seet ndax nañ ko voté dañu waxoon ni dinañu supprimer conseil économie sociale et environnemental nañ ko dugal ndax danañ parce que loolu loi constitutionnelle lañ leen lañ leen lañ leen lañ leen lañ leen créer alors que assemblée ko mën a dindi wala référendaire al conseil économique et social nañ ko dugal c'est-à-dire dañu waroon a bu fekkoonte ni pour ñu wax sénégalais yi ñoom ni ñun il faut ñu am majorité pour gouverner mais nañu dugal loi yooyu seet ba pare alors li li xew mooy fi àddina bi tolloo. kon daal yow gëm nga ni ah? gëm nga ni ba tey bu ñu demoon ci ay législative yooyu législative sax yi nga xamante ni am nañu la ciy xaar certainement di ñu wax. ndax yaa ngi ciy liggéey ak tamit ñan nga fas yéene àndal parce que législative yi moom euh, am na ñuy njort ni assemblée dinañ ko dissoudre en septembre et que bu ñu ko dissoudre dinañu jëm ci nu ma gën a gaawee ci li nga xamante ni moom moo di yeneen législative mais ni lu nu mel su amee lan moo ci fas yéene nekk sa taxawaay benn ñaareel bi tamit aussi ndax ànd nga ci ab dissolution wala ndax vous êtes plus euh, la continuité. Euh, man ne dama mosul gis ñu dis ñu dissoudre assemblée nationale. même bi nga xamante Ablaye Wade ñëw na fekk fi majorité PS dafa waxtaan ak ñoom ñu liggéey nee naa la ñun du ñuy baadoo la ñun Sénégal du ay baadoo la ay nit lañ te xam nañ lu jaadu euh, le président Macky Sall aussi bi mu ñëwee majorité PDS la fi fekk mais dissoudre assemblée bi dafa continuer liggéey ak ñoom ba seen mandat jeex man man man man man man onzième législature ci laa bokkoon dañu liggéey ba mu jeex douzième législature door a ñëw il faut ñu dellu siwaat xam ni nit ñi nañ gëm yàlla te nangu dogal moom bu ko dissoudre ak bu ko dissoudre yëpp ñi war a delsi danañu delsi ñi war a ñëw danañ ñëw loola nag lama leen ciy jox tegtal mooy ñoom seen député yu bari te falu ci seen listu euh, supplémentaire yi xam nga bi ñuy defar liste bi def titulaire def suppléant vraiment programmé wuñu woon ay suppléant ñëw mhm. parce que ki la def ci liste suppléant yéenewula nga nekk député nañ waxante dëgg kon su fekkente ni yàlla wëlbati na kart gi ba nga xam ne ñi yaakaaroon ni ñooy dem assemblée yàlla ni leen yéen ak yéen ak seen liste bi yépp kenn du ca dem assemblée ñii nga xam ne da ngeen leen a beroon nga xam ne mooy jox ma foofu kenn bu ngeen paree ñu jaayee ji ko caaf ñoo ñooy dem assemblée foofu la ñu war a xool mbirum suñu boroom gis nga loolu ku ci xoolul doo gëm yàlla ki war a delsi day delsi ñi war a ñëw dañuy ñëw man def naa ñetti màndaa am na ci assemblée ba ñu def ñett am na ñu def juróomi mandat am na ñoo xam ni benn màndaa lañu def dem am na ñoo xam ni seen mandat yëggul nañ gëm yàlla te nangub dogal te xam ne nag réew mi dañ koo bokk. d'accord mën a nañ ko nañ nañ nañ koy waxtaanee te. di ko rataxal su élection jàllee dañuy bokk liggéey réew mi.